avocat di jaabul eh, bii di wuyoo ci turu maître El Hadji nekk nag aw yambo ci ki nga xam ne bii mooy Ousmane Sonko kii di maître El Hadji Diouf nag moom saabu kii di Ousmane Sonko nag defee ab point de presse. buy pare rek bala moo assandiku rek kii di maître El Hadji Diouf koy feelu te feelu yi yëpp ñu ngi koy seetlu ci ay conférence de presse yu bari yi kii di maître El Hadji Diouf di def mais du ca wax lenn lu dul di saaga ki nga xam ne bii moom mooy président a Sonko ñuy laaj nag kii di maître El Hadji Diouf lan la ko kii di a Sonko nag daal di yorol ndax seetlu nan depuis ca Adji Sarr Ousmane Sonko ba tey daal kii di Maître El Hadji Diouf mayiwul kii nga xam ne bi mooy Ousmane Sonko fu muy yàkke ak nakam te moo dina sax kii di Ousmane Sonko sax kenn mus a dégg daanaka muy tontu ki nga xam ne bi mooy Maître El Hadji Diouf mais Maître El Hadji daal moom yàkkamti na ba kii di kii di Ousmane Sonko daal di def li nga xam ne bii moom mooy ab point de presse moom ba mu porox ndollu ci daal di génn te moom bu génnee daanaka daal du wax lenn loo xamante ne bii lu yenu maanaam lu dul eh, Ousmane Sonko daanaka bu jàkkaarloog euh, doyen di siis wala mu jàkkaarloog keneen daal lam fay wax ay nar lay doon ko di maître El Hadji Diouf noonu la ko euh, waxee.